28 décembre di bis bi nga xam ne ci la fi Serigne Saliou Mbacke bàyyeekoo dem wuyu suñu boroom ñetti at a ngi nii bis bi saa yu delsee soxna Xadi mii day bàyyeekoo ci bitim réew ñëw fii ci Sénégal togg fi ay bernde yu yaatu lool yóbbu ko fi nga xam ne moo di ci barabu sëriñ Saliou Mbacke jox ko taalibe yi lépp ngir delloo njukkal sëriñ Saliou Mbacke ci li nga xam ne moom la ko defal ndax nee na amul fayam benn yoon bis bi nag soxna xaddi mi ngi ko ànd ak borom këram. ak ay doomam ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ci bernde yi nga xam ne moom lay togg muy bernde yu yaatu di ko indi fii nga xam ne moo di ci barabu Serigne Saliou Mbacké ndax jëmm ju sell ji dafa nekk koo xam ne ku sori la ci moom cofeelam ak mbëggeelam ci Serigne saaliw amul fu mu yem loole moom moo tax soxna Xadi nee na bés bi fu mu ko mën di fekk ci àddina réew bu mu ko mën di fekk dana fa bàyyeekoo ñëw ci Sénégal ngir taxawu taalibe yi ci bernde yoo xam ne da ko indi ci barabu Serigne Saliou bi ki nga xam ne moom moo di soxna Muslim Mbàkke moom Serigne Cheikh Saliou da ciy taxaw taxawaay bu am solo ba tax na soxna Xadi sant ko bu baax a baax ci taxawaay boobu boobule. noonu it la sante boroom këram di sëñ Fàllu mi nga xam ne moom it saa su ne taxawaay bu am solo lay am ci bernde yi nga xam ne moom lay togg at mu jot di ko indi ci barabu Serigne Saliou Mbàkke bi te mbooleem liggéey yi nga xam ne mu koy def muy liggéeyub Serigne Touba bi boroom këram gi da ciy jàpp bu baax a baax soxna Xadi di soññaat mbooleem taalibe yi ñu gën a góorlu ci liggéeyal sëriñ Touba ci jëf lu baax te sellal ko ndax nee na loolee rek moom moo mën a jëriñ ab taalibe ngeen ñoo xam ne day jóge ca France fu sori ca France te sëriñ Touba rek tax leen a jóg ziyaar si bu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké rek tax jóg ziyaar si sëriñ Cheikh Saliou rek tax leen a jóg buñ ñëwee def ay bernde yóbbu ko ca barabu Cheikh Saliou bu tedd ba loolu mel na ni am na ñu jege ñu jege ñoo xam ne ñi ba ci man mi sax moo sañoon bis bu ne ma def ko waaye ñoom ñu jóge France ba fii ngir lool rek seen xel def ci dañoo am ndimbalul yàlla ndax loolu ku ko sëñ bi jagleelut doo ko mën rawatina ñu wut ay sërite ak seddaay sedd ba ca France ak tàngoor bi nekk fii ak ñu dal di bëgg a jaawale xel koom dem xel koom muy dem berndeel taalibe gan gan gu nekk daal soxna musli andil nga ma ko fii waaye gan ñi moom mosuma gan ñu ni gan ñi gan ñu neex sëriñ sariwu la gan ñu neex sëriñ tubaa lañ gan ñu neex sëriñ Cheikh lañ gan ñu baax a baax lañu ndax defuñ ci seen xel dara lu dul euh, jàppale leen jàppale leen ci liggéeyu sëriñ Touba bi ñëw barkeelu si ci sëriñ Touba barkeelu si ci sëriñ Saliou Mbacke yal na sunu borom na li ko leer bi baree baree bari rawatina xel kom gi ñu jëm xam ne waxuma bernde yi ñu yóbbu sax waaye Serigne Saliou dafa wax ne xel kom ku yàlla bëggut doo fa teg sa tànk ku fa teg sa tànk rek loo bëgg àdduna ak àllaaxira danga kon nag jóge France dem ba foofu teg fa sa tànk boole ci ay teraanga su yóbboo seen xel daal te ngeen xam ne raw ngeen seen morom yu baree bari te mënatuñ leen a jot yàlla na ngeen ko yàgg a def suñu borom may leen fan gudd may leen wërsëg wu yaatu may leen ak wér ngeen yàgg fee ñëw yàgg fee fekk Soxna Mously yàgg fee fekk Serigne Cheikh yàgg fee fekk taalibe yu baax yi nekk xel ko jërë ngeen jëf.